combat boobu na ngeen di gis mooy Petit Blindé ak Bébé Ñakk Petit Blindé moo ñu won gannaaw Bébé Ñakk won ñu kanam ña ngay lewtoo combat bu ne rek technique mi ngi ñaari xale yi dañoo mën a bëre ñaari xale yi lamb da leen a ngi lewtoo ñoom ñaar Petit Blindé ak Bébé Ñakk ñi ngi lew to Petit blé na Bébé ñak Bébé Ñakh déclenché na coup dox ci koom do dóoraan na attention attention daw na japp nañ ko Petit blé na xaxam mom Bébé ñak jël na la ilaha illallah combat bi combat bi Bébé ñak Petit blé na ma ngay sumi téere yo la ilaha illallah Petit blé na Bébé ñak attention Petit blé na Bébé ñak dimbale na Bébé Diack félicitations grand Thiass attention coup coup coup coup laa ilaha illallah xeex xeex xeex xeex xeex xeex xeex laa ilaha illallah ña ngay dóorante jàppoon nañu Petit Blindé Bébé Diack ña ngay dóor Petit Blindé daw na jël na ko jël na ko jël na ba lan mooy am daan na ko daan na ko awoy ah awoy ah awoy ah awoy laa ilaha illallah Petit Blindé daan na Bébé Petit Pelé la daan na Bébé Ñakk non xoolal Petit Pelé la mu mobilisé.